love. waaw euh, mbokk yi suivre seen seen la nouvelle vision fi ñuy wax ak yéen ñi ñu ngi ci biti course bi parce que mën nañu wax ne mbey mi ci biir course bi presque jeex na ba mbokk yi dina obligé génn ci biti course bi li wër course bi di ko béy kon ñu xamee ko noonu rek instant ñu ngi ci biti course biti course bi di béy alentour alentour bi ak kër yi kër yi jege zone boobu daal kon ñu xamee ko noonu rek yéen ñuy suivre la nouvelle vision. préféré que ñi suivre la nouvelle vision ñi wax buñu faté abonné partager commentaire waaw gënaaw biñu tambalé tàmbalee yaakaar naa amagul bu amee 40 minutes ci la yam mais mën nañu japp né mbéy mi jeex parce que 7 heures lañ tambalé won 7 heures pile lañ tàmbali parce que mbokk yu ñëwoon bëgg a mais dañ leen mujjé wax nañu bay ba 7 heures 7 heures pile la mbokk yi tàmbali mais booy xol euh, digënté bobu ak légui presque 40 quelques minutes la am mën nañ né mbéy mi jeex na mbéy mi jeex temps yi kon ni mo ci dess ba mbokk ñu ngi ci ginnaaw course bi daal mbokk instant ñu ngi ci ginnaaw course bi ba ñu ko waxee woon rek ñu daal euh, lii mooy almustarchidin wal mustarchidaat euh, yaakaar naa mbéyum course bi léegi nekk na événement bu solo nekk événement ni ñuy waajalee gàmmu te la ñuy waajalee mbéyum course bi waaw. waaw ko waxee rek yaakaar naa ba léegi ñu ngi ci ci biti di yamuñu yamuñu ci bi rek mais ñu ngi sax ba li sës yeneen côté yi ba li yeneen buntu kër jàmbur yeeg yeneen buntu kër yi. jàkkaarloo course ba lépp ñu ngi ñu ngi koy béy lépp ñu koy béy parce que mën nañoo course bi presque jeex na jeex mën a wax parce que ñuy coono ñoo fa des mais bu dee mbéy mi moom jeex na. waaw euh, duggaan nañu ci biir course bi di vérifié waat euh, fii jaaroon sànq yaakaar naa dans cinq minutes jaaroon nañu fi mais fi ñu doon nii macha allah yaakaar naa lépp set na waaw mën nañu jàppale ak course bi lépp set na.

bu dee kontaan nga rek àndal ak mbokk yi ne jaarama Serigne Moustapha na ñepp na bind commentaire jaarama Serigne Moustapha yeen ñi ci live yeen ñi ci live bokk lañ ci woy wi dañu leen jaarama jaarama Serigne Moustapha commentaire Senhor está dafa mel ne dafa mel ne mbokk yi ñu ngi jëm kër kër góor gi lañ jëm si kër sëriñ bi lañ jëm pour xool ñi xam ne fa nekk tamit ñu dindi ko waaw saa yi kër góor la mbokk yi jëm pour xool ginnaaw bi ñu bëree course bi ci même pas cinquante minutes mun naa ne cinquante minutes lañ bëree course mu set parce que sept lañ tàmbali maintenant ñu sept heures cinquante sama juumul waaw cinquante minutes lañu lañu yaakaar naa yéen a gisandoo instant jóge nañ ko suba ñu ngi ni jàkkaar ak euh, résidence bi nekk ci biir kër góor gu tedd gi Cheikh Seydou Mouhamadou Moustapha Sy ngi nii nag euh, fas yéene dem ci ginnaaw ci ginnaaw ginnaaw kër gi fas yéene béy foofu incha allah. yàlla loo xam ne rek ak euh, la seen nouvelle vision incha allah rabbi dara doon rëcc dara doon rëcc mbay mi. yaakaar naa ñi miin kër sëñ bi ñu ngi fi ci ginnaaw kër sëriñ bi ñu fi ci ginnaaw ci fi mécanicien yi nekk foofu fas yéene ba ci incha allah ak euh, la nouvelle vision dañ leen a duggal leen ci xuruxaat ñi nga xamante ne nekk bitim réew wala am ngant mënoo leen a bi rek la toog billaahi sëñ bi rek la toog waaw mbokk yi mbokk yi saxoo laa ñu wér mu ngi fi ci ginnaaw kër sëñ bi nekk ci ginnaaw ci raay bi ci raay bi ci ginnaaw fi raay bi nekk saa yi mun na ne fala mbokk yi nekk voilà gis ngeen ñax mi fi nekk ñax mi fi nekk mbokk yi tàmbal nañ ko dindi ñu ngi fi ci raay bi nii ñu ngi fii ci raay bi ci ginnaaw sëriñ bi mais li ñu la mbokk moom fu ñu fu ñu xas ba jàll sëgg rek même pas cinq minutes bu fa siggee presque dara du fa dess fu ñu xas ba sëgg rek même pas cinq minutes bu fa siggee mun nañu dara dara dara du ci def yaakaar naa gis ngeen gis ngeen ñax mi nekk fii ci raay bi ñu ngi fii ci raay bi taxaw gis ngeen gis ngeen ñax mi xanaa ñu suivre rek après incha allah xool réaction yi parce que dañ leen jëlal ay réaction ci mbokk yi wax ñu xam daal ñu ngi fii ci ginnaaw ci ginnaaw kër sëriñ bi ñu ngi fii ci ginaaw kër sëriñ bi ci raay bi waaw ñu ngi fii ci ginaaw kër sëriñ bi ci raay bi gis ngeen ñax mi fi nekk mais yaakaar naa ne bu li li mbooloo mi ñëw xajuñ ci ñax mi mbooloo mi ñëw xajuñ ci xajuñ ci waxuma sax ci ñax mi waaye xajuñ ci bërëb bi ah, comme ni ñu leen ko waxee woon sànq rek yaakaar naa ne fi ñu fi nekkoon sànq fi ñu nekkoon sànq mën nañu ne sës na maanaam mën nañu ne jeex na fi ñu nekkoon sànq taxaw di leen woon léegi léegi même pas cinq minutes mbokk yi béy nañu. mooy bi ñuy soog ak fi laa ne yaakaar naa gis nga li ma leen mbokk yi lii nañ ko mu jeex même pas cinq minutes mbokk yi dajal na waxuma sax béy ko mais dañ ko béy ba pare daj boole koog day ñax benn place. don't know. mbokk yi ba léegi ba léegi ñu ngi ci ginnaaw kër sëriñ bi mais la ñu gën a dugg ci ginnaaw ginnaaw ginnaaw ba xoolee tey ci ginnaaw ginnaaw ginnaaw la ñu gën a dugg parce que kër sëriñ baa ngi ni ñu jàkkaarloo ni kër sëriñ baa ngi ni jàkkaarloo boo xoolee mbooloo bi ñu ci ginnaaw ak ñax yi fi nekk mën nañu fi ay ay këru jàmbur la wala ay teene jàmbur la mais mbokk yi ñu ngi koy ñu ngi ni di ko di ko di ko béy waaw pour ñi ñu ñi soog a dab ci ci live bi nga xam ne nekkatuñu course ba tuñu course ba fi ñu wax ak yéen euh, course ba pare na ñu ngi fii ci kër sëriñ bi ñu ngi fii ci kër bi ñu ngi fii ginnaaw kër sëriñ bi sax mën nañu ci ginnaaw kër sëriñ bi lañ nekk parce que bi ko wër yëpp fekk mën nañu bee nañ euh, bee nañu trois deux côtés yi wala trois côtés yi léegi mu desoon benn côté bi fa lañ nekk nii Hey, salam alaikum. jàmm naka liggéey bi ana waa kër gi ari kàlla mu la waaw ah ñu la xoonoon kër gi waaw Wow. boo waree dugg si étranger noonu nekk ñu toogoon ci mbedd boobu romb ko suuf ñoom ngay romb si beneen